lu ñu ne réew mi dafa tollu ñu dajaloo bokkandoo ndey ak bàyyi xeexandoo jàkkaarloo mbir mi wàccandoo ay kamil ñaan yalla wa jàngu bi wax nañ nañ wacc dem ay prière ñaan ci yalla je pense que lo xam dafa dal ci réew yëpp ñoo yegg ci réew du luma samba indi du luma ma demba indi defena ñepp wara andndo a àndandoo bokkandoo benn am ci ben taxaway ci bir lolu dafa opposant bu may gis ci télé bi tout le temps mu nekk député muy Bara doli député mais li ma ko njëkk a dégg mu wax mu ne dossier bi bu ñu ko politiser je pense que kooku en tant que député taxaw na taxawaayu député ba tax na ma Samba ak ma Demba ci wax li ñuy wax rek làmmi njëgul mbooya kay wax la mu wax moom moo ko xam bu fekkee nag am na un plan personnel wala nga bëgg jël dossier bi nàmm nga politique gëj nañ laa dégg nga ne naa xuuxatal yàq deru nit xëcc nit taf sama biir ndax loolu defe naa loolu jàpp loolu réew mi. pour yow lu moo xam mais en tout li mu wax boo ko jàngatee. neewul jàngoro bi lii laa proposé bu génnoon ne jàngoro bi man yaay laa député laa askan wi ñu ngi leen di ñaan ñu bokk ndey bokk bàyyi xeexandoo ko jàkkaarloog moom ñu ne waaw mais dafa gën tudd diw ne ministre de la santé nañ ko fi jële indi diw ndax bu diw nekkee lii ak li dañ ko mais attends fii li Sénégal gépp nangu mel moom moo gis gis-gis bi dafa daax opposé ñu fi nekk ñu fi nekk ñu opposant lañ mais opposant yi ñoom ñëpp fi mu nekk nii moi je salue l'opposition sénégalaise par leur maturité et leur niveau de responsabilité ñëpp lañu suspendre nekk ci xeex bi xeex bi moy lu laal sa mbokk laal ñun ñep ñoo bokk ñu ci lool mais mom du suppukaan yi du jënd leen kèn xamul lu mu doon tollu fële di wax naan ay nañ dindi diw nañ lu ñu soxla du politisation dossier bi lu ñu soxla moy nu ñuy Sénégal ci moyens yëpp moy moyen sécurité moyen sanitaire moyen religieux lu ñu mën jaar ba sécuriser suñu bop pour jël li jàngoon teg moom yàlla génneel ñu ci jam ba kèn bañ ci loru la muy wax nag moom la engagé mais damay wax ni que bu wax jibee da xool ki ko wax mooy kan d'abord la muy kaas problème personnel waaw mel na ni nag parce que li ñu dégg li ñu on a vécu ça fii bu ñu nekkee ci territorialisation des politiques publiques acte 2 acte 3 acte 3 bi ñu koy développer ab Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé moo nekkoon ministre des collectivités territoriales bi ñu ñëwee ci pôle territoire dem nañ ba nga xamante ne dañ ne mënutoo am kenn ku yor trois mandats cumulés askan wi ñooñu ko laaj mandat cumulé yi boo amee deux troisième mandat bi nga mujj yor ngay député la woon bokk conseil communal municipal par nekk président du conseil départemental conseil départemental ba ñu ko dee la jàpp ne moom Abdoulaye Diouf ak loi la tey ña jël tay yor conseil bi sant nañ ci yalla parce que xam nañ ne benn nit mënu cumuler ñet poste nga ko téye ko réew mi tolatul foofu comme si yaa gën ñep alors loolu moom fekkee ne lo japp guux ko ba légui président Macky Sall bi muy wax mom elle est mal placée parce que mom bu mënoon Macky Sall dana ko jël si ñu bokk wala bu amoon vision dina xam ne kii day doxal réew mu ñëw bokk ci liggéey mais luñ fa war a mën a jox rek ñu ko gën a mën fuuf ñoo ko fi nekk di ko doxal bul fàtte ne moo noon Ablaye Wade Fantomas ba mu ànd ak Abdou Diouf Ablaye Wade falu nguur mu nekk guitare si ko xalamal guddeeg bëccëg nangootu ko wax ne mootu ko wax te vidéo yaa ngi fi kon kooku kàddoom duma ci wax lu bari bi élection présidentielle jotee encore une fois candidat yëpp ku ne raasaatu la dóor ci yow xaalis toog biir këram àndul ak kenn est-ce que am une vision ko xam est-ce que mën nga xam vision kuy mar kuy sécurité c'est-à-dire dossier politique politicienne mo baxul ci dossier D'accord, da ko baxul te mom politique politicienne la mën mako bu ni jigen. ñu ci mars na xol ci ñoom Aline Sitoé talatay Fam femme ñu mam yi fa koro bañ leen xam dañ ko nangu nangu ko la seen pour sauver askan